dégluwunu kenn sunu nopp bi yow lan ko jox jafe-jafe yi bari na lool sunu diggante ak autorité yi ndax koo dem ci moom day jàpp ne dangaa ñëw rek ak sa waxi kese ku ci yorul nag mandarga mu la wane ne lii mooy toogal sëriñ bi fii la ngay lijjanti du gaaw a lijjante ko loolu daal diis nañ la ko sëñ Mourou Mbacke si mii nag nga doxale sunu diggante ak yow muy sa ndaw matale na ko ndax man di toujours daf may woo di ma soññ noo koy sant noo koy gërëm te di ko seede seedeel yàlla na dese barke bi yaag sa mag yi nga fi nekkal yëpp ci barke Serigne Touba représentant yi daal ñu ngi nii waaw seen ittee ngi nii ñu wax sëñ kon bisimilah ci kàddu euh, ni ko baay Laay waxee tamit ci liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéeyal fële sëriñ bi léeg-léeg ñu am ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ci bu ñuy màggal si Touba bu ñu sañoon Mbàkke loolu tamit lu ñu ci mën a dimbalee rek donte ndimbal a ngi ci am sax waaye bu ñu sañoon ndimbal yi yokk ndax taalibe yi bu ñuy màggal si dañuy bëgg a indaale ay xéewal te léeg-léeg mu jafe seen diggante ak autorité yi. gis nañ nag taxawaay bi gis nañ tamit ñaan yi bu baax ndax li ñuy liggéeyal sëriñ bi wax dëgg yàlla tawfeex ak ngi ciy am. ñu ñëwoon nag ànd ak yow màggalu sëriñ Abdul Xaadir gi yal nañ fi yàlla yàgg ñëw te yàgg la fee fekk di sant bu baax a baax di gàttal foofu kàddu yi rek Mbàkke yéen ñi nga xam ne ak ñun ñi nga xam ne noo ànd di liggéey sëriñ Touba euh, te ñu yor kàddu yi sëriñ Touba ci gox yëpp ci senegal sëñ bi mu ngi leen di nuyu moom Cheikh Mamadou Bassir di leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal di leen wax ne it xam na bu wér coono yi ngeen di jànkuwanteel ci seen diggante ak ña ngeen fa nekkal ndax baatub sëriñ bi dafa woyofut képp kuñ ko jox jox nañ la loo xam ne lu rëy rëy la yàlla na fekk nga yëg ko sëñ bi nee na mi ngi sant am na yu bari yoo xam ne waroon naa agsi ci moom te yàlla dogal na agsi wut ci moom kon loolu soo amee yéen ñii nga xam ne yéen a fa nekkal sëriñ bi ci lu mel ni ñëw wopp ci hôpital yaag ñañ jàpp ñi ay jafe-jafe yooyu yëpp yéen a dox seen diggante ak sëriñ bi ci loolu sëñ Bass nee na yëg na ko nee ni mu ko yëgee ne loolu sëñ Mountakha yëgee waaye mi ngi leen di dénk di dénk boppam rek di ñu ko dénk ñun ñëpp xam ne lëggeel sëñ Tuubaa moom lëggeel sa bopp dokk la ndax lépp loo defal yoon wi sa bopp ngoo defal seen jafe-jafe bopp yii ngeen wax nag muy carte boobu ngeen wax ne da ngeen koo soxla waxoon nga ko lu man ñetti at ci gannaaw waaye xam ngeen ne jamono yi ay jafe-jafe amoon na ci réew mi muy wopp yi yooyu yëpp kenn talutoon def dara waaye nee na dégg na ko te it moom du def lenn loo xam ne du ci diisoo ak sëriñ bi ndax mbind yi dafa foor bala ngaa bind di joxe da nga cey wax ak nga ci war a waxal waaye yoon wi may ne ko moom mii sëriñ Muntaxa lépp lu mu jëfandikoo sëriñ Muntaxa ànd na ca kon nag na ngeen rafet njort ci ne lii muy lii ngeen bëgg ci moom yéene ko incha allah dana leen ko defal su ngeen demee ñi ngeen bàyyi gannaaw na ngeen leen xamal ne sëriñ bi nee na sëriñ Tuubaa rek la ñuy boole boolewul sëriñ Tuubaa ak dara moom it lépp loo xam ne kilifaam wax na ko muy sëriñ Muntaxa incha allah man mii nga xam ne man la ma man la ma boole yéen moom Cheikh Mamadou Bassir bii dana dana ma ko wax ma wax leen ko su ngeen demee ña fa nekk it ngeen xam ne yéen yéen leen fi teewal yéen a ñëw it ngir seen jëmb yi waaye yéen ñii teew it su ngeen demee ngeen yóbbaale nag kàddu sëriñ Bassirou buñ demee nañ góor góorlu te taxaw te xam ne yoon bi rek ci lañ nekk boole wuñ ko dara wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nee na daanaka li sëriñ Modou Mbacke si wax doyoon na sëkk mënoon na ko yóbbaale ci sama tur ndax ci turoom la waxee. moom sax moo sàkk mu tëj ko rek. moom moo sàkk sax mu tëj ko rek. waaye daanaka ak cant rek lay doon. waaye daanaka ak cant lay doon. cant gi it. cant gi it. mooy jëpp jëf. nee jëpp jëf. ju jëm ci sëriñ Touba. ju jëm ci sëriñ Touba. bu yombee rek Serigne bi nangu na ko. bu yombee rek Serigne bi nangu na ko. te Baye Laye Ndiaye mii. te Baye Laye njaay mii. nga xam ne moom lañ teg Pikine bu moom lañ teg ca bu yàggul. ndigal lañ ko joxoon. muy jàkk ja. muy jàkk ja. jekk nañ. jekk nañ. ba ndigal li ñu tàmbali déglu ngir tàmbali ko. li rek la ñuy déglu ngir tàmbali ko. te loolu yàggul. te loolu yàggul. appul juróom weer wala juróom benn weer. kon loolu. ne kon loolu. wane na seen yitte ak seen taxawaay. wane na seen yitte ak seen taxawaay. noonu mu demee ci moom itam. noonu mu demee ci moom itam. mboolem représentant yëpp ci taxawaay boobu rek lañ ne. yëpp ci taxawaay boobu rek lañ ne. sëñ baa ngi leen di sant ci turu sëriñ bi. yàlla def na sax bu yàggul. yàlla def na bu yàggul. waxoon na waxoon na ma. ne waxoon na ko. ba ma joxoon ndigal sëñ Modou si. ba mu joxoon ndigal sëñ Modou Mbacke si. ngir yéen ñëpp ngeen war a ñëw siyaar si ngir yéen ñëpp ngeen ñëw siyaar si ko. mu mujj xat. boo far yàlla dogal mu mujj xat. waaye jàppoon nañ dat waaye jàppoon nañ sax dat bi. ak sëriñ bi. ak sëriñ bi. kon lu ko itteel la. kon lu ko itteel la. ndax xam na fi ngeen toll ci moom. ci moom. fa ngeen nekk moom ngeen fa nekkal. ndax fa ngeen ne moom ngeen fa nekkal. li sëriñ Modou Mbacke si rek. li sëriñ Modou Mbacke si wax rek. lu bari bu ak si wut. lu bari bu ak si wut. seen taxawaay tax seen taxawaay tax de. kon ngeen gën a góorgóorlu rek. te xam ne fa ngeen ne. yittey nit ñi rek ka leen fa bàyyi. ndax ku nekkal sëñ Tuubaa ci barab. da ngaa war di taxaw nit ñi. di toppatoo yittey taalibe yi. sëñ Modou Mbacke si mii nag. sëñ bi ne mi ngi koy sant bu baax. mi ngi koy gërëm. gis na ni liggéey bi. def na ko yitte ak taxawaay. def na ko yitte taxawaay. amul benn soxla bu dut moom. suñu kàddu daanoo itam. fu kàddoom daanoo mi tam moom. la muy tontu. la muy tontu. li ngay bëgg mën na am. li ngay bëgg mën naa am rek lay wax. ci lépp nag ci lépp nag. te du ko wax yem ca. te du ko wax yem ca. waaye da koy jëfe. waaye da koy jëfe. jëf moo yóbbaale wax. waaye wax du yóbbaale jëf Pastef bu dëggu ak taalibe gu wér ak ku njàmbaar moo ne ci moom lim ci rafet a njortu nag mooy Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma mii ko fekke ci comité organisation bi. ci comité d' organisation bi. li aju woon ci wàllu caravane bi def. li aju ci wàllu caravane bi ñu daan def. ci commission bi ci commission culturelle bi sëñ jiite. bu kon bu ko dee seere ci lii mu fekke ko woola wane na ne yàlla nangu na ko sëñ bi neen na ngeen gën a góor góor lu baax rek te xam ni mission bi nag mission la li ñu naan taklif la waaye du tashrif waaye du tashrif taklif mooy mooy responsabilité boo xam ne ne taklif mooy responsabilité boo xam ni da ngay xam ne da war a yenu da ngay xam ni da ko war a yenu ngir liggéeyal ko yàlla. ngir liggéeyal ko yàlla. liggéeyal ko lislaam. liggéeyal ko lislaam. liggéeyal ko Serigne Touba. waaye nag. waaye nag. du loo xam ne. du loo xam ni. ab cër la ab cër la. boo xam ne lu ñuy loo xam ne lu ñuy puukaree woon. wala lu ñuy bàkkoo. fi ñu daaneel suñu mbokk mu tedd mi ñëw. mais bi muy daaneel mbokk mu tedd mi ñëw. di sëñ muy sëñ Sidi Ahmed si. ibnu Seex Alaaji Abdul Aziz Si. mi nga xam ne ñëpp xam nañ ko. xam naa dama leen di ñaan ndax jotaay bi yàgg na ci nee na da leen di ñaan ndax jotaay bi yàgg na ci yéen. doog a waxtaan ak moom. sëñ bi a ngi leen di sant bu baax. mi ngi leen di gërëm. ci yitteeg Pastef bi. ak taxawaay bu baax. jërë ngeen jëf.